والأمر fii ci kër Cheikh Modou Bachir Mbacké gi nekkee ci Touba Darou Minane fi la waajee ànd ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ngir fas yéene dem ca Ndakaaru ngir waajal inauguration jumaay Massalikul Jinaan mu war a doon le 27 septembre 2019 war a dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Muharram atum 1441 ginnaaw gàddaayug yonent bi salallaahu alayhi wa salaam kilifa yi nag biñ xëyee jël nañ mbooleem dispositif bi ngir organiser li nga xam ne moom moo di convoi bi ànd kook ñi nga xam ne ñoo di takk der yi lépp yemb ki nga xam ne moo di Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke Bachir génn ki nga xam ne moo di Serigne Moussa Nawel ànd ak moom ba sëriñ bi dugg ci oto bi ci lañ def benn convoi bàyyeekoo Touba Mbàkke

سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي am na fi daarayni yaa Allah wa bil mu'aymini lis abi istiraayka ma xaditu sirran ilal jamaati yaa Allah anta al azizu lasi aqim bi isati isan yuqal li dulit تكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله كريت لي كلاسي كبر بلا كلاسي di génn Touba fépp foo xam ne jaar nañ fa ñi nga xam ne ñoo di askan wi génn nañ fësal seen ak mbégte xam ne ànd nañoo ak Cheikh Maodul Mountakha Mbacké Bachir liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay defal sëriñ Touba. loolee feeñ ci xar kanamu mbooleem taalibe yi nga xam ne romb nañ leen ci biir dëkk bi. لنا فدعونا سم وخلي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغد أتيت به لسبب سكريايا وابح يا الله خلقت لي كل سبب قد أتيت به لسبب بسكريايا قدر يا الله خلقت لي رديئك دعي بلا سبب مني عمدتك يا xaar yàlla وابتلي من كسو لنفا خمس ألتي فلا كسو ريايات وأبحي الله لغوت أزمان اللج يا من له أموره وغوت لي رصايا رساخ يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أسعى وانصرفت لخيرنا وياك الأقدار يا الله بذاك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي دارين يا الله بذاك يا باسط أعمال لي بريضا فاذكر مبعثتك دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رضاك يا رافع بين مرتباته بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك يا ذو الدارين مرتباته بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتباته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت أمري ثلاثي لا سبت عيسة خلا ويسا واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلا لي ستي الإنس والجنوة seytaanu yàllaaw anta samiu lasi naajitu samanan wa bil masarati li xat jot bi ñu génnee ci dëkk bi rek lañ jël autoroute Ila Touba bi bi ñëpp àndandoo doon benn ci njiitalul Serigne Moussa Nawel mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ bi ànd kooku mboolem kilifa yi ñu àndandoo jubali fi nga xam ne moom moo di ndakaaru baaxi bi kawn ya sa bi ma qaaba min busraaka ya allah alaata ya adlu ah, daayi bi xayri qaas wala lilaari walim qad kunta ya allah أزالتي فلاسي قد قدت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آية خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت العليم لاسي فاحفظت جملة ما لم ترلأ بي لخير دهر يا الله أنت يسيم لاسي بعد زعمته لخوت فلن أسي من منك يا الله أنت لاسي لقد مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أنت سكور لاسي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمي أسه يا الله أنا لي لاسي أحليتني أبدا بخير مكر ولم على التحيا الله أرضى الكبير لاسي بانت كبارة lii ci yoon wi nag mbooleem péage yi nga xam ni jaar nañ fa convoi bi amuñ benn jafe-jafe ndax liggéey bu am solo boo xamante ni benn taalibe buñ naan bëgg Bàmba moo ko taxawu ñëw ba ci kër Serigne Bassirou ga ngir fexe lijjanti lu nu mel ba oto yi suñu agsee ci péage yi duñ fa yàgg loole nag sëriñ bi sant na ci bu baax ba bi fi agsee jot na leen ñaanal للدار دارين يا الله أنت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى مع تفسير يا الله أنت رقيب الذي بعد صيانته كلي كليتي أنسي ورلوان يا الله أنت المجيب لاسل خادا بخيران إجابة من كلي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا نزهت توسئة بالإبخ يا الله أنت الأكيم لاسي أبلغتني لسوى مظائمي وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسين خاد الموادة بسرمدا بريلا والقرب يا الله أنت المجيد لسي بان المجادة وخد مبتلي منك مجدا فاخ يا الله وإنك الباعث المقي بلا ضرر كويتني جملة الأقدار يا الله أنت سيد لاسين هذا سعادته لبث رأيك من نساك يا الله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 جلبي يا سالخلق يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا سالخلق يا الله أنت القوي الذي خويتني بردا في سر والجنية سالأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنن ولا توجه بمكروه يا الله أنت الولي لاسي laa abtaqi badalam bi wali kunta bitamini ya allah anta al amidu lasi anta al amidu lasi وجات لي نعما بلا قرور وقير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا bi wali kunta bit taamini ya allah anta al amidu lasi وجعلت لي نعما بلا قرور وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتي أتليتني دراما أحسيت يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب بنادي عنك يا الله يا مبدع الخلق يا من لا تواجهني ما لا أحب بنادي عنك يا الله ميدا مدى أو للخط لي كراما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهي بخير آيات جدت لي أبدا فلا تسكري بصف noonee lañu àndandoo ba ni ñu agsee fi nga xam ne moo di ci Dakar ci rond point Patte d'Oie fa la mbooloo mi tàmbalee kenn ku ci nekk di fësal sa mbégte waaye di ko wane ci li nga xamante nii moom nga yore moo xam oto la wala moto wala nga nekk sa kër sax ñi nga xam ne dañuy taxaw seen balcon yi loolee lépp ngir wan seen ak mbégte ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir mi nga xam ne mooy doon ganuk Ndakaaru waaye di waajal inauguration Massalikul Jinaan مني يخل دون سخط منك يا الله قال حقك لي ما كنت أندب بخير كسب إلى الجنات يا الله خير خط لي ما كنت أندب بخير كسب bin ilal jamaati yàllaaw awsalta li waajidul asmaana doonaanan lakal wujudu laasi li baana yàllaaw yaa maajidu alniyat daarayni mutaliyam bi xayri kibrin wa

ngir fas yéene ànd ak moom dem ca Masaalikul Jinaan foofu sax sëñ bi jot na faa jaar ci ki nga xam ne moom moo di mbay Guèye ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni defal na ko sëriñ tubaa di yee salaat kër gi nga xam ne mooy kër Serigne Touba gi nekkee ci Colobane. jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ bamba moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom no violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul tendance nañu sant xaadim ginnaaw loolu nag la sëriñ bi ànd ak sëriñ Mbàkke yu fay mu jiite convoi bi ñoom ñëpp ñu àndandoog taalibe yi ñu dar ñi nga xam ne ñoom ñoo di woto yi ñu jubali fi nga xam ne moom moo di masaalikul jinaan ndax sëriñ bi fa la war a jaar visité ko laata muy dem ci kër sëriñ Touba gi nga xam ne moo nekkee ci kolobaan sag wàllu raw na ambulance njaare ma doonoon sa résidence surveillé ci xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne daan la offense sëñ bamba yorewuloo woon benn défense budul yoneen xaadim rasool yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ Touba grand basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool lii rekk doy na prudence. bamba. seen yéene mooy xañ la cadence. sëñ bamba. ku ñu fa relance. jagabaw nga xam ne doo xaadim rasool. yoneen bi mooy sa référence. bamba. amoo defet yow bay laaj revanche. sëñ bamba. nañ la sa souciance. naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba muritoo raw na alliance suñ bamba ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence. bamba say xasidaay suñ opulence. sëñ màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool. yaay sunu autosuffisance. bamba. yow yaa jar woote conférence. bu kenn toog naan day ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak nga leen rawoon yaay croyance sëñ bamba sa mbir dee xel mënu ko science yaa yéeme yow xaadim rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëf fee xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la nu jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France sëriñ bi bi mu agsee ci masaalikul jinaan ànd na kilifa yi muy sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir ak mbooleem kilifa yi nga xam ne fekk na leen fi ñu ànd daal di dugg ci biir visiter li nga xam ne moo di liggéeyub jumaa ji muy nemeek gu yaatu goo xamante ni daanaka sëriñ bi def na fa waxtu lépp rek ngir ñu leeralal ko li nga xam ne moom moo jëmoon ci liggéeyub jumaa ji am na sax discours bu am solo boo xam ne sëriñ bi waroon na koo def ci masaalikul jinaan waaye loole dafa mujj gi mu dénk ko sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir mu war koo def ci Masaalikul Jinaan ci alxamis ji à de 16 heures. cheikh bamba moom non violence. bamba la woote di jëf ne silence. moo tax murit amul tendance. nañu sant Xaadimu Rasuul. sag wàllu raw na ambulance. bamba sag dégg raw na fréquence. njaare ma doonoon sa résidence. surveiller cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne daan la offense sëñ bamba yorewuloo woon benn défense budul yónneen rasool yaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay ginnaaw bi ñu bàyyeekoo fii ci masaalikul jinaan ci la mbooloo mi àndaat ak cortège sëriñ bi ñu jubali kër sëriñ tubaa gi nga xamante ni moo nekkee ci Colobane fi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir fi la fas yéene dal di resevoir mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fiy ñëw ak daayira yi ci diirub ngan gi nga xam ne mi ngi koy amal fii ci ndakaaru ci bërëb bi nag am na mbooloo mu takk lool mu ko fi doon xaar waaye it ay xasida teeru ko fi ak njàngum waa xisbu tarxiya ñoom ñëpp toog di mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy liñ leen jëlale woon ci arrivé Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir fii ci ndakaaru muy waajal inauguration Massalikul naan mu war a doon le 27 septembre 2019 ñuy sant bu baax mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi dëpp yu Touba ba ci fii ci ndakaaru waaye di sant kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekk fii ci ndakaaru teñ taxawu liggéey bi bokk na ci sëriñ Mbàkkiyu Fay ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom la àndal ak taalibe yi ci taxaw gi nga xam ne taxaw nañ ko gani sëriñ bi waaye it ki nga xam ne moom moo di Mbaye Guèye bu ONG moom it sant ko bu baax gërëm ko ci taxawaay bi ak mboolem kilifa yi nga xamante ni jàppale nañ ki nga xam ne moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci fii ci Ndakaaru ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi ko fiy def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. lii rekk doy na prudence. bamba seen yéene mooy xañ la cadence. sëñ bamba ku ñu fa relance.